fii nag lañ nekk tey ci Tëngéej muy sorti 10 boo jógee yusu mbargan avant nga yëg pont wu Kër Ndiaye ñun dañu dëkk fii y plus de 400 maisons fii moo am ay màgget yoo xam ne dañu war di dem hôpital di faju ji moo ay jigéen yoo xam ne dañu nekk ci diggante doon ay jigéen yu wérul am ay xale yu fi nekk am ay nit yoo xam ne dañu am jabet am ñoo xam ne dañu war a dem di faju ji waa Eiffage ñëw ak waa Apix ñëw fekk bakkenu dëkk bi ñu ne dañ koy tëj te tey jii autor à péage ñëpp xam nañ ni yàggul fii ay tool la woon mënul nekk titre foncier fii ay tey nuy la donc nag ñun li ñuy ñaan le président Macky Sall di ko ñaan les autorités sénégalaises mooy ñun tey jii loo gis ci réew mu dégénéré rek seetaan bu bari moo koy indi ñun sànniwuñu xeer taaluñu ay pëno dóoruñu ay nit mais nag du ñu nangu benn yoon benn yoon duñ ko nangu ay étranger ñëw suñu dëkk di tëj du ñu ko nangu

mais du ñu nangu ñu ñëw nii dañ ñuy tëj lii nag def waxuma damay menacer wu ñu kenn mais lii bis buñ ko jéemee tëj mën na dégénérer te bu dégénérer mën na jur lu nekk ci àddina parce que yaa a trois mois ci ginnaaw gis nañ fi ay sénégalais yoo xam ne mer nañ dem di attaquer ay station essence ñii mer di dem di attaquer ay Auchan te li ko indi mooy manque de compréhension Eiffage nag toog nañ ci bakkanu sénégalais yi te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg